asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaw kon mbokk yi nekk ci uraasul iraada yëpp ñoo ngi leen di nuyu di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm dellu siwaat nañu ci qaadi ma jaxate kala allazi ala llahi ñu leen di fàttali nag rek ne ñoo ngi ci ànd ak al imam jaxate imaam daa'i jiite ci aynu maadi di sëtëb maam xaatima jaxate ànd gi ci ànd ak moom itam mooy yaar yi fa ko waral benn bi mooy léeg-léeg nga dem ci baat yoo xam ne maam xaali di ko wax boo ko laajul Idrissa doo ko xam ndax ak jafeem lay doon la ca topp mooy léeg-léeg nga wax ba jàll mu am ak waroo ginnaaw man duma marja ci taarix bi ki nekk marja ay yee ci taarix bi moom mi ci biir mbooloo mi koo xam ne déglu nga ba noppi ah te bëgg maanaam bëgg dindi lii nga li ma wax nga bëgg koo dindi ah sañ nga koo dindi amaa nag bu naasara bu mu naasara jotee saxal dëgg du man maa koy def ndax man duma marja ya te ragal naa liñ egg foofa léegi nag dañoo waxoon ne lii waral woy te cosaan yi woy mooy atifa fikra xayaal suura atifa mooy yëgu yërmande fikra mooy xalaat xayaal mooy jeneer suura moo di melal suura nag fa lañuy yemoon te it fa la ñuy dalee eh, Cheikh Tidiane ci boppam it léeg-léeg mu bind baat yoo xam ne boo ne kullu xaw yi sax doo ko xam foofu di gën a gàtt awalan mu ne bi jiitu ci liy waral nit di way al aatifatu yëg yërmande wa hiya moom ahammu anasiri nafsi moo gën a am solo ci cosaanul mbind al adabi ci mbindum adab lu tax mu ne li annaha ngir moom aatifa ta assurul adibi wan fiaalihi mooy jeexitaw jeexitalu waykat wi bind adab wan fi aalihi ak buur jëfam infial mooy buur jëf maam jóg rek daal di koy jëf wa jayshaani nafsihi ak itam riddik bakkanam jaasha yani haaja jayshaani nafsihi ak riddik bakkanam riddi nag da ko def pour jóg taxaw waaye riddi ngelaw da koy def mu ne fa isa ad fa isa rakadatil atifa wa axmada shuuru in adama nassu sa yëg yërmande gi su ne bërit jóg te sa yëg ak bopp gi giim dootoo mën a tey bind benn nassu nass bi da nga koy ñàkk maanaam texte bi dootoo ko bind wa ida wa idan tadiu alfikra wa yaxfu alxayaal wa taxbu suura kon su boobaa xelaat bi nga bëggoon a bind daf lay riir tadiu alfikra jéeneer yi nga doon jéeneer itam day gëmmentu tàmbalee nelaw wa yaxfu alxayaal su boobaa melal gi nga bëggoon a melal it day giim wa taxbu asuura kon Cheikh Tidiane yi dafa wax ni liy waral nit di bind yëgug yërmande la te yëgug yërmande googu ci xol wala yëgug ñeewante walla yëgug naqar mooy li nga xam ne moo ëpp solo ci cosaani lépp lu nit ki di bind danga ca xam la muy yëg li ana a taassurul adibi wa infialihi ndax yëg googu mooy liy jeexital ci bindkat bi adib bi te moo di ak buur jëfam moo koy tax a jëf wa jaychaanu naf nafsihi ak itam riddik bakkanam ci wàllu bëgg a def dara waaye nag mu jox la liy waral nit ki bëgg a bind mu échec nee na isaa rakadatil aatifa soo xamante ni yëgam googu buur na daw bu fekkente ni ñeewante gi jóg na daw yëg gi giim mbind ma dootu mën a nekk su boobaa ahmada shuuru yëg ga day giim in adama nassu nassu ba nga bëggoon a bind mbind ma nga naroon a bind dootu ko man wa idan takun tadi'ul fikra xalaatoon nga waaye xalaat ba day mujj sanku yaxful xayaal doon nga jéenéer loo war a def loola day gëmmintu nelaw tax bu suura am na loo bëggoon a melal melal ga day giim meloo nga doon bëgg a wax day giim kon aati fa munta ñàkk looloo tax wala atifatu hiya infiaalu nafsi l bil alami l mu ne aatifa nag li ci jublu mooy mooy yëgug ñeewante googu moo di buur jëfug bakkan bopp aji bind ji ci kaw yëg aw métit wu weex xiina yalxaa ilayhi naba muhsin jamono joo xam ne yi xiina yulqaa ilayhi nabaun muhsinun soo xamee ne sànni nañ ko benn xibaar bu triste bu métitlu rek bu bindee da xam ne kii day bind ci métitlu te boo demee ci way maam xaadi yu jafe yee firi daa ko gis aw bi suruur yi léeg-léeg itam ñu sànni ko xibaaru mbégte wal bahjati ak maare su boobaa da ngay gis ne bindkat bi siy bind day bind comme ku bëgg day bind comme ku maare mu ne inna tadxulu ala nafsihi axbaarul mubhija shaair bi adib bi saa yoo xamee ne déggal nga ko ci bakkanam bi xibaar yoo xam ne xibaar yi mbégte la day bind nga xam yow mi jàng li mu bind ne kii dafa bég di bind wala dafa mer di bind wala dafa jàq di bind wala dafa yërëm di bind wala sax dafa ñeete di bind wala sax dafa soxore di bind lu ci nekk da koy xam mu ne aasi il atifa yusiru arrida wa suqt yëg googu mu yëg di bind nag li koy jolli li koy yëkkati mu mel ni pënd buy jolli moo di ngërëm walla mer su nit ki gërëmee di bind da koy xam ci mbindam su meree di bind yi da koy xam ci mbindam wal alam su amee métit di bind itam da nga koy xam ci bindam wal amal su amee mébét di bind it da koy xam ci mbindam lii lépp nag bokku ci waxi Baay Xaal waaye xam ngeen ne Sarama Tijaan yi gay boroom xam-xam la adib la bu adib nag bu dee wax day wax waxu adib te adibun minal udaba nee su ko defee fa tahshidu an nafs bil maani su boobaa bakkan bi day dajale maanaa yu bëree bëree bëree bëree bëri wa tajiishu su ko defee mu mboole yu bëree bëree bëree bëree bëri day day fongo moom bakkan bi ay maanaa yu bëri boole ay xaat ay xawaatir ay xelaat yu bari waaw moo xam nag xalaat yi jëm ci mer wala xalaat yi jëm ci bëgg wala xalaat yi jëm ci naqar wala xalaat yi jëm ci métitlu wala xalaat yi jëm ci mébét saaniyan ñaareelab lii waral bindkat bi di bind ginnaaw bi amee bagaas yi alfikratu xelaat mu ne hiya alxaqiqatu allati yatakawanu min a adabul adibi nee na fikra mooy cosaanal dëgg li nga xam ne mbindum bindkat bi ci la koy jëlee taalifkat bi adab bi muy am ba mën a taalif ci la koy jëlee wa yaqumu alayha fannuhu te ci fikra la fànnul adib di taxaw wal udabaau yaxtalifuuna fi ma yuassiruuna min al maani nee na nag udabaau yi nga xam ne bindkati adab lañu dañuy waroo ci li ñuy jeexital ci ay maana wa yajnaxuuna ilayhi min al afkaar ak li nga xam ne danañu jeng jëme ca wala méng boog jëme ci ay xalaat yaxtaaru baaduhum an yakuna waadixan am na ñoo xam ne ci udaba yi li ñuy tànn mooy ñu jóg rek wax lu leer fii maanaahu ca maanaam ya xariban ila xulubi mu doon maanaa yu jege xeli doomi aadama yi ak seeni xol wa xuuluhum ak seeni xel fii marma u ca sànnee kaayam ba nga xam ne moom du sànni maanaa ya fu sori ba ngay xuus di ko jëli dem ci mun ci lu xas dem ci fu nekk dem fa man ngaa dem sax ba dem ci xaw moo moo it ngir bëgg jëli maanaaya maanaam laa yu ji iddu um fii fikri yii du leen sonal ci xalaatam waykat boo xam ne day bind baat yooyu dafa yu ko yoo xam ne kenn du ko mën a def <laughs> loolu soo ko defee da sonal yi nga xam ne ñoom ñooy ñooy ñooy jàng seen seen bind eh, seen xalaat wala yak wala yakuddu um fil xawsi ala maana du leen sonal ci ñuy xuus ngir di jëli ay maana am na adib yu mel noonu wa baadul udaba yi am na yeneen adib yoo xam ne nag yi ibul xumuud wa yanasu ilayhi xóotal jaafeñal moom lañ bëgg wa yara anna fanna la yaktamilu la u rawatul jamali taxuusu ilayhi moom moom dafa wax ne ak fanlu ci wàllu mbind ak làkk ak luxa du mën a mat mukk aw euh, taara taaram ak ak rafetam illa ina taxuusu ilayhi lu dul mu nekk wax yoo xam ne maanaa ye day xóot ba da xuus nuuru dem jëli ko lu dul li day xóot ba da xuus di nuuru pour dem di ko jëli am na ñoo xam ne loolu la sini adab mel nga xam ne bala ngaa jot ca maanaaya tuqallib wuju ar-ra'yi fii da nga xeeti xalaat yu ne ngir mën a xam lii waaji wax lan la ci namm ak lii maanaaya saalisan ñetteel ba alxayaalu mooy jeeñeer wowala si yudiifu ilal fikrat yi ki nga xam ne dina yokk dina taf ci xelaat zilaalan ay ker wa alwaanan ak i melo yoo xam ne tax sinu dina rafet wax a ak rotam dina jegeñal ilal naf ci bakkan xubula a daa nangu wa tashiu te dina siiwal al itminaanu ak dal ilayha jëm ci moom wa huwa te moom al wasiyu moo taar ba alladi taar ba nga xam ne yundiru a dina sellal ko dina taaral ko wa yashruqu te dana feeñ dana fenk fii jawaani bi a ca wàllam ya xelaat jéeñeer boo xam ne soo xelaatee ba war bind day yokk ca mbind ma ak taar yokk ca mbind ma di jegeñal bakkan ba mu mën koo nangu du yem ca loola du yem ca loola rek de waaye dafay siiwal ak dal ci moom te ba léegi xayaal mooy taaral gi nga xam ne dina sellal te dina leeral waxi wax waxkat bi tey itam dina ko fenkal mu ne naññ ci yépp fànnam ak bépp wàllam wax ji dalay yéem foo ko jaar rek foofaa lay gënal boo xoolee ca maanaa ya dalay gënal boo xoolee ca kalimaat ya dalay gënal soo xoolee ca maqaasid ya dalay gënal soo xoolee ca tëggin wi dalay gënal su xayaal amul ci mbindam mbindkat bi tabdu ka anna a shay'un la yuba'u bihi nas ba bu dikkee day mel ni mbir moo xam ne kenn du ko faale boo ko gisee daal da nga koy tànn ca poubelle ba aw yaltafitu ilayhi wala sax ñiy geesi jëme ci moom wala yuditu fiha nafan du ca indi njariñ laaka lati taxisuu xawiyan daafian min xawli al nee na wax ju ñàkk fayda lay doon ju nit mënula xam ju nit bëggul mu ju dul saf nit saa mu mel ni wax ji nga xam ne diñ ko yëg muy aji am kàttan di jiñ ci jàng ko muy waxi ki nga xam ne moo di xaafis ibrahim ba nga xamee ne bushra ma nga koy martial te moo di wax mbaaxam ginaaw génnam àddina ak metitlu ak deewam mu ne bu fekkee ne adib bi dafa wax ne dafa deele ak nit mu ne wallahi inni hasidun li mawti sadiq yi wallahi man sama xarit bi ma am naaw tiis lool ci dee am gi waaw mu ne loolu rek mos loolu rek am ku deele rek def di def rasa eh, daal di wax ne man de am naaw métit ci deewu sama xarit bi nee na loolu du jeexital dara waaye nag su waxee la bu Bushra waxoon ca bu muy defal risa u ci deewug Afis Ibrahim nga xam ne dafa wax ci biir wax jene haadihi shu'batun min qalbi xadin xalaat li mawtika wa la'allaha dufinat ma'aka wa ma laa la taf'al wa qad kunta ba'di wa kuntu ba'daka fa isa ana abkika fa innama yabki ba'di ala ba'di ma'i xam nga jooju wax moo gën a yéeme te moo gën a neex a dégg te moo gën a sawar a jàng lan la wax da ko ne cëy yàlla lii de bàngaas la boo xam ne bàqatikoo na ci sama xol bi in xalaat aati yi sobatun lii de càq la bàngaas la boo xam ne min xal bi ci sama xol bi la taxoon te in xalaat buddeeku na li maw tëkkal ñeel sa deega wala àlla adufinat maaka boo demee sax dañ koo suulaale ak yow wama la a laa taf al lan moo ko ñeel ba du def loolu dana ko def kay waxat kunta baadi wa kuntu baadaka yaa nekkoon sama genn wàll man ma doonoon sa genn wàll kon boo fi génnee day mel ni bànqaas lañu fàq ci sama xol bi buddi ko dem suulaale ji la ko fa ita ana ab kiika jamono jumale day jooy fa ma yi sama genn wàll day ànd ak sama genn wàll di la di jooy ñu ànd ñun ñaar waxin woowu waxin la woo xam ne Euh, ba ko waaje waxee day jeexital ci xolab ko kuy dégg waaye na kaw wax nag ne inni asinu li mawti sa diix yi yem fa kooku du am benn jeexital boo xam ne des koy fàttaliku texte bii ñuy wax yëpp nag waxi sax Tijaan Gay la eggaguñu ci fa muy waxaati ci Baay Xaal yi waaye moom moo lay jàngal adab ak ni ñu koy nosee moo lay jàngal adab ak niñ koy nosee moom Cheikh Tidiane mooy wax mu ne raabi an ñeenteel bi nga xam ne moo di suura bi ci lii rafetal adab ci kuy bind moom day jàngale liy rafetal adab ci kuy bind mu ne suuratu awil ibaara ñeenteelab anaasir yi composé adab moo di melo wi wala waxiin wax walla tëggiinu wax wax suura mooy melow wax ja ibaara mooy baati wax ja usloob ba mooy tëggiini wax ja loolu lépp suura la ci jiblu te wal itaaru ladi yaxmilul fikrata kimbu këmbukaay gi nga xam ne mooy yenu xelaat bi mooy suura bi këmbukaay bi nga xam ne itaar mooy këmbukaay allazi yaxmilul fikrata bi ye bi nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy ëmb wër kapp xelaat bi wa yanqulu tafkiral adibi di toxal melal mooy këmbukaay bi ëmb xelaati kiy bind di ko toxal ci ak yëgam ak ak ràññaleem di ko génne mu di ko wax ci làmmiñam mbaa mu koy bind ci téeréem ba léegi muy wax ne huwa al alfaasu yaxtaaru al adib li ibanati li lil ibanati an maanaahu suura bi mooy baat yi nga xam ne adib bii bind dina ko tànn bëgg caa mën a feeñale ay maanaam ya muy bëgg a wax waaye dawha wada an xaasan mu di ko tëral tëralin woo xam ne wu mu ko yeñale la xasba maa yattafiqu wa saw euh, wa sawquhu tëralin wi nag mooy na mu tollooye ak na mu àndee ci ak yëgam wa yatanaasabu wa taaxatuhu wa xadratuhu wa xudratuhu te itam dina em dina tolloo ak kattanam dina tolloo ak man-manam ak énergie ci xam-xamam bi mu jàng ak génne gi mu koy génne cim xelam ba léegi mu ci suura de waxagul ci bay xaali adab lay wax foofu texte bi daanaka adab rek la fiy wax mu ne wal anghaamu wal awzaanu allati tashiicu fi sanaaya alkalaami nee na suura bi moo di daaj yi ak màndaxe yi al anghaamu wal awzaanu mooy daaj ak màndaxa yi allati yi nga xam ne tashiu dana dana dana génn dana génn waa dina ànd dana gunge fii sanaya u ca catu gémmiñam sanaya <coughs> moo di ñaari bëñi kaw yi féete ci kanam ak ñaari bëñi kaw yi féete ci ci suuf ci kanam gémmiñ nit loolu mooy sanaaya te wax bu dee génn foofu la nga <laughs> nga la wala wax ji di jaar di génn ci biti fii sanaayal kalaami ca génnukaayu wax ja ca buntu gémmiñam googa fa taxi bu u xuwatan wa tasiran su ko defee na waajay tëggee baat ya di ko génne fasaaxa ga muy am mooy mujj may nag melal ga kàttan may ko ak jeexital wal uslubu yaxtalifu bi ixtilaafi kulli adibin wa xudratihi kàddu yi ñuy tegale di ko wax day waroo ci waroo képp koo xam ne kii adib nga nanga waroo warooye ak sa moroom ak kàttan ga nga am te sa moroom ñàkk ko maanaam nit ki dina am quwatul adabiya boo xam ne même bu la dee jàngal dangay ngay xam lim la jàngal ngir waxin bi ak jooxe gim koy joxe ak leeral gi waaye am na ñoo xam ne dañuy lëb-lëbal ak rël ba nga xam ne même bu la dee jàngalab texte donte ñoom binduñu ko doo ko mën a xam-xam gu leer anaasir yooyu nag mu lim di atifa fikra xayaal suura moom la wax ne loolu lépp boo ko boolee day fees dell ci way maam xaadima jaxate su dee way wa asiil anasir kulluha tuujadu ci fi shiiril xaadima jaxate kala anasir yooyu nga xam ne moom la ñuy boole ba adab mën a am muy aatifa fikra xayaal suura daa àndandoo ci way maam xaadima jaxate su dee way nga di ko dégg danga nga ciy gis aatifa da nga ciy gis fikra danga nga ciy gis xayaal danga ci gis itam suura mu daal di joxe nag benn masa benn misaal te falaa yem ma dugg ci wax imaam xaali yem fa su ma bu subaa nag ci imaam xaali rek ay wayam dong nag ci la ñu wax mu ne waa mu ne nag léegi iqra in shi'ta jàngal bu soobee xasidatuhu allati imtada biha cheikh omarul fouti yi radiallahu anhu xasida bi nga xam ne ci la maam xaadi doon woyee maam Cheikh Omarul Fuutiyu Taal radiyallahu anhu soo ko jàngee di nga gis ne maam xaadi ku mën a la te ku amul yëg la ku am aatifa la ku am fikkara la ku am xayaal la te ku mën a taswiir la ku am suura la wala ti tasababa fi a bi saw ji i saasum melal na taar ba fii a ca wa bi zawjihi soxna soxnaam sa mam saasum tashabbuban melal gu rafet muf iman gu fees dell bil wajji ci taru mbëggeel alxawi yi alxawi al al al jawwi yi ga di dina firi biir bumu la xaala ba mu waxee ne na alxalbu ansaasum نعى الجسم أنساسم وما القلب نائيا ولا لاميا عنها ولا وساليا فعينان ترا ترا la bind moom waaye man tawran la mel ni laa koy jànge ndax taaratan daf saa topp tawran ak taaratan nag ñoom ñaaree ànd fa aynaani tawran tajmudaani wa taaratan tasixaani tawkaafan yabullu ridaiya maanaam wax ji may wax nii rek su fekkee yow dégguloo sax arab tëggin yu ma koy waxee di nga xam ne ndaanaan dëgg moo doon wax loolu na al jismu ansaasum wamal qalbu naa iya wala laamiyan an a wala uwa saaliya fa aynaani tawran tajmudaani wa taaratan tasixaani tawkaafan yabullu ridaiya du maam saasum lay wax xasal la fi def ndax dafa bëggoon a gis maam Cheikh Omarul Fuutiyu ngir ñaan ci moom mbir du Tijaan mu am tukki bu mu def maam Omar wutu ko fi mu ñëw nag bëgga a melal mitit wi mu am ak tiis wi mu am ak ñeewante gi mu am ak yëg gi mu am ak jeeneer gi mu doon jeeneer maam Omarul Fuutiyu te yàlla def ñu juuyoo gisu ko mu daal di koy melal ci xasal daldi jël maam saasum soxnaam sa waykat nag saa yu def xasal di wax di wax di wax jigéen jigéen jooju day def ci taaru li ma ci gën a yéem nag daadoo ngi fi salmaa ngi fi laylaa ngi fi soodaa ngi fi waaye yooyu yëpp maam xaadi def leen a bàyyi ginnaaw mënoon naa wax na al jismu an layla wa mal xalbu na iya mënoon na ko wax mënoon naa wax na al jismu an salma wa mal xalbu na iya mënoon na ko wax waaye waxu ko dafa bàyyi jigéeni naar yi mënoon naa wax na al xalbu an indin mënoon na ko wax na al jismu an indin wa mal qalbu naa'iya wala laamiyan anha wala uwa saaliya mënoon naa wax hind waaye dafa bàyyi hind bàyyi soda bàyyi salma bàyyi layla bàyyi turinaar yépp mu wone ne africain bu ñuul laa buy woy kon damay wax xatal ci turi jigéeni africain ni man surtout nag kooku doon sama soxna nga xam ne ñaaw njort du ca am mu daldi wi ni na al jismu ansasum sama yaram day sori na saasum wamal qalbu naa iya waaye sama xol soriwu ko wala laamiyan anha te déet may aji wàcc feneen fudul ci saasum wala laamiyan naasilan lay tekki wala laamiyan anha te duma duma kuy wàcceeti feneen yu ko dul ci saasum wala uwa saa te sama xol bi itam du mësa dëf ba fàtte saasum ndax xol bi bu dee métitlu ànd ak kaw tiis ci Cheikh moom mu bëggoon a gis te def xatal tuddee ko saasum mi di soxnaam te moo di waajuru maam Mor saasum jaxate ndax mitul liggi ci la yem déedéet mu ne fa ay naa ni tawran taj mu daa ni wataaratan tasi aa ni taw kaafan jabullu rida iya mu ne samay bët léeg-léeg day way ne deng du jooy waaye bu sama xel demee ci Cheikh Omar mu mu tuddee saasum wa taaratan léeg-léeg nag tasi xaani muy muy muy yol tasi xaani di sotti taw kaa rongoñ yoo xam ne yabul lu rida yaa rongoñ yi day dem bay tooyal samay jiri fa aynaani tawran tajmudaani wa taaratan تسحان توكافا يبل ردائيا léegi nag foofu la Cheikh Tidiane waxee ne fa ayna zalika al qalb ban xol moom la nit ki mën a am muy xol boo xam ne laa yaraqu li asal musaab boo xelaatee waxin wow maam maam maam maam di wax jël def xasal ba noppi def tajmiil ci way bi jël maam saasum teg ko place di ko mitit lu te maam maam Cheikh Omar la juuyu la wuutee loon ci barab te bu bëggoon koo gis boo boo bu fekkee am nga xayaal bi nga xam ne moom la maam maam xaadi am nga am fikra bi nga xam ne moom la maam xaadi am nga am suura bi mu am am bi mu am bu la gënee dëgër yow soo dee jàng way bi yow da jooy nga xam ne kii boo amee xayaalam it yow moo la gën a dëgër loolu sax daan wax ne fa ay fa ayna zalika xalb wala zaaka xalb ana ban xol mooy ba nga xam ne allati mooy ba nga xam ne laa yare xudu yërëm ba egg ci bëgg a jooy li asal musaa bi ngir kii nga xam ne daa am aw tiis allati yaxtariqu qalbahu ki nga xam ne xol baa ngay lakk li bu'di qarinatihi anhu ngir sori goo xam ne àndaaleem ba daf ko ko sori inna ul la lati laa yabra'u shagafahu an zalika al qarina moom mooy aji bëgg ji nga xam ne xol bi du mës a jóg ak ak cofeeram di nekk an tilkal qarina ca àndandoom boobee al ba'idati ba di aji sori jisman ca yaram wa al qaribati te aji jegeñ ruuxan ca ruuga na al jismu ansasum wamal xalbu naa iya na aljismu ansaasum wala wamal xalbu naa iya wala laamiyan anha wala uwal saaliya fa aynaani tawran tajmudaani wa taaratan tasiaani tawkaafan yabullu ridaiya wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu